Noël. Euh, donc notre présence se justifie par la période de fête. Nous sommes en période de Noël. Dans une semaine, ce sera la fin de l'année. Il était tout à fait normal pour nous euh, de célébrer les enfants, donc après leur composition. Nous avons choisi les meilleurs élèves des différentes écoles qu'il y avait au niveau de la commune, ainsi que les, des élèves, des enfants au niveau des comités ecclésiales euh, de, de base. Ce qui fait que nous en avons sept au niveau de la commune compte non tenu de tous les enfants que nous avons pris au niveau de tous les quartiers qui composent la commune. Et comme nous l'avons dit, nous ambitionnons euh, d'apporter notre contribution à une éducation de qualité, à une formation pour nos jeunes un programme spécial pour l'employabilité des jeunes. Ça va également aux questions de gestion du cadre de vie, de l'entrepreneuriat des femmes et des catégories socio-professionnelles, mais également de la santé, de la prise en charge des personnes âgées et vulnérables, sans, sans oublier la culture, le sport si vous voyez toutes ces questions qui sont abordées et toutes ces personnalités qui étaient avec nous cet après-midi, nous avons eu la présence du ministre de la Jeunesse, Madame Nene Fatouma Tatal, mais surtout notre marraine, Madame Julia Nian, qui est la fille de feu Adja Giorgio, qui est une femme de développement, à l'instar de plusieurs autres femmes de développement qui sont dans la commune, mais également des personnes ressources de la commune et qui sont juste intéressées par un mieux-être de notre commune. Donc c'est tout à fait normal qu'en tant qu'également enfant de la SICAP, que nous puissions des moments de joie c'est dans l'éducation donc c'était juste joindre ci à l'agréable waaw boo gisee ñu ñëw fi tey euh, dañu dañu nekk ci période nawel xam nga tey le 24 décembre fii ak une semaine dinañ féete at mi njeextalu at mi kon ñu ne rek ñu naka suñu doom yi suñu sët yi suñu euh, xale yi ne ci biir commune bi ñu fexe nuñ leen bégalee mais surtout nuñ leen récompenser ndax Euh, boo seetloo muy man mii euh, di nga xam ne fii laa dëkk Liberté 2 muy Julia Niang bi nga xam ne moom mooy nu première édition bi ak mbooleem femme ak góor ñi nga xam ne ñi ngi ci biir commune bi nekk ay personnes ressources euh, jël seen yitte ak seen doole ak seen mën-mën ak seen xalaat yépp delloo ko commune bi day jaadu ñu mën a tase bu ñu fowee ba pare ñu wax xale yi aussi na ngeen jàng bu baax ndax dañu am ay bëgg-bëgg yu xóot ci wàllu jàng ci wàllu formation ci wàllu xëyu ndaw yi am ko ci wàllu suñu gestion cadre de vie am ko ci wàllu entrepreneuriat bi am ko ci wàllu wér-gi-yaram yi moo xam ci jigéen ñu mag yi la wala ci personne vulnérable yi am ko ci sport bi am ko ci culture bi am ko ci loisir kon fii moo tax ñuy ñëw fii ndax dañu dëkk Liberté 1 jàpp ne lii tabax réew mi quartier bi suñu loxo daf ci ñun dañ ci am wàll ñaan ndaw euh, di remercier madame le ministre bi nga xam ne moo porté choix am euh, def ma marraine journée tey bi li ñu am daal li ñuy wax rek ci ministre euh, Zahra Iyane Thiam nekk na ministre boo xam ni euh, mu ngi liggéeyal SICAP balaa muy liggéeyal SICAP boobu soxlaagul lokk soxlaagul mairie SICAP ñu ngi koy ñu ngi koy ñaanal li nga xam ne mi ngi koy def ci xale yi di bégal xale yi di bégal mag ñi ku fi nekk mu nekk euh, di liggéey liggéey bu am solo ci biir euh, Sicap bi euh, yàlla dañ koy ñaanal yàlla na ko yàlla jox meexi bi comme dañ ci am wàll nag day jaadu ñu dugal ci suñu loxo donte dañuy fo ndax jàmm ci la lépp xaj gis ngeen tey ne fo nañu kaf nañu ree nañu tax nañu gën a delloo suñu xol suñu borom ndax li ñu toog yépp ñu ngi naan yàlla na jàmm sax loolu dafa am solo bu jàmm saxee nag dara tëwul nit su fekkee sabablu nga te loolu lañu ñu nekk di def nii. waaw jox nañu lu toll ak juróom-ñaari téeméeri ndaw ay cadeau. kado yooyu ñu ngi ko tas si école yi ne fii yëpp ci biir Sicap bi classe bu nekk ci primaire yi CI ba CM2 jël nañ fa ñaari élèves yi ci meilleur de leur classe ñu jox leen ay kado après jël nañu aussi comité ecclésial de base yi nga xam ne mooy groupement catholique yi comme fête catholique la aussi foofu aussi ñu jël fa xale yi nga xam ne gën nañu xarañ gën leen ràññeeku ñu jox leen ay cadeaux quartier yëpp tamit liberté 1 ba liberté 6 baraka ak famille militaire yi aussi dajale nañ ñooñu ñëpp ñu jox leen ay cadeaux compte non tenu également xale yi nga xam ne ñoo dëkk diggante Liberté 1 2 3 te nga xam ne place Antiana bii ñu ne ñoom ñoo ko wër ndax place bi ñëpp xam nañ ko place bu doon dundal Sicap la ñu fas yéene nag euh, dekkalaat loolu lépp ci jàmm ak salaam ak fo mais également célébrer l'excellence ñi ngi sant nag di gërëm autorité ak personne ressource yépp ñi nga xam ne ñoo jàpp ci bés bi pour mu nekk fas yéene nañ ko defaat yeneen at mais surtout fas yéene nañ ci ponk yi ma wax yépp taxaw ci taxawaayu doomu gox bi suñ ci mënee am leneen aussi ñu jël ndax ñu ngi koy xeex. et nous vous remercions des cadeaux que vous avez fait de tout votre cœur. Et nous vous, souhaitons un triomphe bravo sur votre image. Merci de votre aimable attention.